wax na ko léegi ci mbirum Petrotim lañu koy doore alors euh, coow li bëri woon na d'abord euh, monsieur le ministre yow euh, da nga bokk ci biir vidéo boobu document boobu alors tey nan la la BBC contacté. ah BBC ay journaliste lañu def ma sax na ñoom nañ ñi ñi yéen ndax yéen dama ñëw fekk si leen. tout à fait. waaye ñoom ñu ñëw ci man laaj ma dañu nekk Sénégal am loo xam ne lii. Euh, ñu ngi ciy def benn euh, émission benn enquête bëggoon xam ndax bëgg nga ci bokk ndax dinañ la mën a poser ay questions ma ne waaw ñu ñëw ñu daal di ñëw ci man noonu noonu la la mbir mi amee. d'accord coow li bëri na euh, gis nañu procureur def appel à témoin alors bañ ci commencé def ak wax ba léegi est-ce que sentir nga ni am na ay avancé ngir dëgg feeñ. nañ wax lu leer te gàtt. président Macky Sall buggul mbir mi avancé looloo am moo tax it appel à témoin am appel à témoin ci lan ku xam ne ñëw xam ne ñëw boo ñëwee it ñu jéem a xam lan jéem a xam ndax corruption am na maanaam ndax ci mbir mi am na koo xam ne jënd nañ ko jox ko xaalis mu jot ca te muy xaalis boo xam ne dañ ko làq waaw lu ñu làq de dina jafe feeñal xam nañ ko moo tax ñu topp mbir ma ca ca ca boobu ca boobu yoon waaye xamoon nañ ne itam appel à bi du am mucc waaye teewul ñu jóg dem wax fa liñ fa war a wax ndax am na solo sénégalais yi xam ne liñ fa war a wax wax nañ ko fa li ñu war a xam xam nañ ko mm-hmm. waaye nag ñu ut itam suñu coobare bopp ndax ñun li ñu itte